waaw suñ ñaxtu tey bi li ko waral mooy dafa am bu fi nekkoon te suñ marché bi yàq na ko yàq boo xam ne bii Sambour Foire doxatu fi isunu glace amatu fi

amu parce que maa ngi dégg mu naan dafa yor euh, kii euh, agressé commerce du dëgg moom sociologique la jàng agressé à commerce amu ko sociologique la jàng agressé à commerce amu ko directeur bi tuuma luñ ko weddi gis na caa bokkut sambar yaa nga ne daj nañ ko dara nekkatu fa soo demee nga dem filmer ko xool ko tuuma luñ ko ñu ne fang la ñu wax tuuma luñ kenn lu ne fang fangaara la président Macky nag ñi ngi wax moom mi nga xam ne moom jiite réew mi te nga xam na ñëw dimbali ñu ci marché central au poisson marché central au poisson yàq nañ ko deuxièmement ñi ngi interpellé ne directeur boo xam ne bi ñu ma doon ci euh, liggéeykati marché bi ñun waa marché mën nañoo yor suñu marché capable nañ pour yor ko xam nañ feebaru marché bi kon bu ñu fi indil keneen koo xam ne ki day dikk jàngoroy marché bi mu gën koo dolli ku ñu ko jox suba suba ñu faj feebaru marché bi kon bu ñu fi indil koo xam ne day lekkaan marché ba marché bi jeex mu demu yoonam soxla wuñ loolu